ngi dellu siwaat ak yeen ci lii di ay laaj ak i tont yuy am talaata bu nekk di jóge fii ci masjid saad ibn abi waqas ci Parcelles Assainies ci dakar suñu talaatay tey gi mooy tombeeg ñaar fukki fan ak ñett ci rabiul axir muy sunu maam yi di ko wax rakki gàmmo mu tombeeg le 7 novembre ci 2023 laaj yooyu de mën a jaar ci 77 814 42 20 wala 77 275 01 91 comme ni ngeen ko ba ko xamee it mooy yàlla daf ñu wërsëgaloon benn tukki bu ñu demoon moo tax ba talaatay euh, bi passé ay question réponse amul woon yéen ñiy topp groupe bi it xam ngeen ne am na ñaari tafsir ak ñaari dars minhajul muslim yoo xam ne it dugg luñ ko woon loolu moo nekkoon sabab ba falilahi alhamdu yàlla dellu si nañu ci jàmm ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nangul ñu lañ fa defi woon te it ñaanal nañu mboolem ñoo xam ne nii dañoo nekk ay jullit ak fu ñu mën a nekk yal na yàlla subhaanahu wa taala nangu ñaan yooyu yëpp te nangu seeni ñaan defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi àllaaxira kon incha allah dañ tàmbaliwaat tafsir yi ak dars ci ci kattanu yàlla euh, ak mbaaxam euh, gannaaw lii kon bu ñu xoolee la nga xam ne nii mooy euh, laaj bi nuy jëkkee day dellu rek ci feebaru Sénégal kii mu ne dafa am benn xale bu jigéen bu ma bëggantee lool bëgg koo takk ma wax ko sama yaay ma ñëw nag mu ne ma dem na ci seetkat bi nee na kii day bu ko takkee rek dana dee léegi nag man affaire bi daf ma jaaxal naka lay def waa ala kulli xaal li ñuy jëkk a wax mooy sa yaay ak ñàkk xamam ma nga jóg def bakkaar bu gën bon ci bakkaar yi nga xam ne yeneen bi alei salaam tere na ko te mbokk mooy solo sa dàll dem ci ab seetkat yonent bi sallallahu alayhi wa nee na boo ko defee ñeen fukki fan say julli yàlla du ko nangu bu dee da dem mu wax la lam la wax lépp nga gëm ko nee na yow weddi nga alquran nag bi ñu wax sa yaay yéeféer la waaye nañu xam ne daal def na danger bu rëy te mooy loolu moom war na ko tuub gan jaa màgg ci tuub ban koo defetu mukk te it bi doon société boo xam ne nii képp koo xam ne am nga koo xam ne ab seetkat la soo ko mënee laayi biir mu dellu ci njub xayrun su dul looloo it bu nekkee sa responsabilité sa kër la gu mu luyee wala am nga ca pexe war nañu fexe génne ko soril ko ndax alku nañu ca dem ci ñoom day alku loolu mooy benn ñaareel bi mooy loolu ñu wax waxul dëgg kumpa yàlla moo ko xam soxna soosu bu dee ne gërëm nga diineem gërëm nga jukkoom demal nga takk ko mbokk dee bi nga nekkee si biiru yaay la yàlla doon bis bi ngay dee du ne soxna bi nga takk mooy tax nga dee wala kii nga takk moo tax nga dee déedéet loolee mbokk ay ay ay wax rek la wala fii dañ naan tombe moo waral ay gaaf jigéen nit da koy takk mu tombe mu war a dee dee na keneen takk tombe war dee dee na ñu ne kii daa gaaf waaye mbokk loolu ab jullit moom yonent bi alayhi salaam dane woon falaa yasuddannakum heure bu loolu traversé sa xalit nee na bum la tee def lu baax la nga jàpp da koy def fan mi ngi noonu bu dee soxna su baax la daal takkal yal na yàlla barkal seen diggante wallahu subhanahu wa taala alam waaw suñu delloo suñu ah, ñaareelu laaj bi kii moom mu ne ci liñ doon tere ci nit ki waroo jaay loo xam ne amoo ko mu ne bu dee ne ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay magasin yu ndaw sunu magasin bu mag moom foofu la ñuy commandé ndax nit ki bu ñëwee di jënd ñun am nañ droit jël xaalisam mu commandé ko ca magasin bu mag ba waaw naam bu la wóoree ne kay li ngay jaay moom <clears throat> moom am na yow lii succursale rek nga nekk waaye seen <clears throat> magasin bu mag bagage yaa nga fa <clears throat> su ko defee yow. Euh, wóor na leen li ngay jaay moom am nga ko da nga ko ko jox loolee da ngay gis ne lislaam du bañ loolu même bu dee ne euh, nekkagul ci sa suufeelu ko euh, loxo waaye maadaama yow danga am relation magasin boobee su ko defee daal ci gàttal yonente bi alei sallam waxoon mooy bul jaay loo amut nit ki ñëw nga nga waxaaleeg moom mu joxalab xaalisam ba pare nga dem di wëri lii la lislaam di bañ waaye bu la wóoree ne moom ma marchandise mi kat sa marchandise la masalan commandé nga ko Dubaï mi ngi ñëw commandé ko Chine mi ngi ñëw lii moom xam nga ne yaa ko moom ci mi ngi ñëw waa ji it bi nga jël xaalisam nga wax ak moom wax ju leer ah am naa ko de mais mi ngi ñëw bis sàngam lañ ci mën a jot islam du bañ loolu il islam di bañ rek ca bépp goma grand commerçant boo waxal Sandaga xam na ko am na ñuy jëw jël proforma nit ñëw wax la ya nga ne am nga ko moom mu dem uti otoom jël la mu war a jël ñëw nga di koy làkki daar daar islaam loolu daal lay bañ wallahu subhanahu wa alam waaw suñu ñëwee ci suñu ñetteelu laaj kii moom day wax ne xale yu jigéen ñi léegi dañoo bari di wax seeni borom kër sama sang sama aljanna sama firdaws wa ala kulli xaal bu dee dañoo yem ci sama sang day loolu dara néewu ci ndax suñu borom jalla wa ala ba muy nettali la xewoon ci diggante yusufa alayhi salaam ak soxna premier ministre ba al aziz daf ne wa alfaya sayida haala baab ba ko soxna say dàq ba yusufa ubbee bunt bi rek dañoo ñëw rek jàkkaarloog sangu ndaw sa kon jabar di wax jëkkëram sayidi loolu dara néewu ci amma nag aljanna mbokk jëkkër du aljanna jabar du aljanna loolu ëpp naa def sama aljanna déedéet aljanna moom mag ñuy xaar fële ca euh, euh, alaxira ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa dugal ñu fa ci njéggalam ak yërmandeem wallahu subhanahu waaw xam naa bu ñu ñëwee suñu ñeenteelu laaj kii day wax ne jàkk bi may julli imaam bi moom faatiham dafa gaaw lool lool sax waaw léegi nag ndax man buy tari damay dagg sama fatiha wala naka lay def waa ala kulli xaal bu lu wóoree ni day soo mottalee sa fatiha da ko fekk ci rukoo bi dañ naan la mottalil fatiha bi fekk ko ci rukoo bi su la wóoree ne nag su may mottali fatiha ba day jóge ci rukoo dañ naan la la nga jote jàng jàng nga ko demal fekk ko imam mooy responsable ci loolu <coughs> ndax imam garanti la su matalee julli bi lillahi alhamdu su ko matul mooy responsable waaye it fexeel gaawal sa kemtaleel kattan ba daal faatixe bi moom nga jàng ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa alam waaw xam na suñu ñëwee ci ah, suñu juróom benneelu laaj waaw kii moom déedéet wala boog suñu ñëwee suñu juróomeelu laaj kii moom day wax ne waaw su dee nii da ngaa nekk ak benn waay masalan yaa ngi koy gis mi ngi jël alali jaamu ndax yow boo demoon ci euh, waa ji nga wax ko ko loolee da ci am bàkkaar wala da toog war caa maandu rek wa ala xaal li ñuy jëkk a wax soo nekkee kuy jëlee alali jaambur dañuy xool ndax yow mën ngaa wax ak moom su dee mën ngaa wax ak moom sa warugar mooy dem ci moom na ko diw lii ngay jël ci kees bi wala lii ngay jël ci am la jàmbur loolu daganul waar ko delloo ko gannaaw loolu mooy la la war lu jëkk su dee ne nag loolee def nga ko moo delloo gannaaw loolu mooy jubluwaay bi soo ko defee nag faalewu la ah su boobaa yet am nga droit dem ca borom alal ja da ko ah bàyyil xel man kat bëgguma cee feeñ waaye bàyyil xel xel diw day jël ci alal bi loolu moom waroo ko noppuwaale mi ngi noonu su doonte ne it étape bu njëkk ba te mooy laayu ko biir mën naa jur fitna it dara néewul ca nga dem ca borom alal ja dafa ko ah bëgguma cee feeñ de waaye day diw dee ko bàyyi xel ndax sa alal ji mu ngi ciy jël nangam ak nangam suñu borom mu ne walla wala taktumu shahada wa man yaktumuha fa innahu aasimun qalbu suñu borom mu ne bu ngeen amee seede bu leen ko nëbb kuy nëbb seede xolam ba dafa doon xol boo xam ne xol def kotu bàkkaar la wallahu subhanahu wa taala alam waaw suñu delloo suñu juróom-benneelu laaj kii dafay wax ne man dey dama am intérêt dama am banque xaalis dañ ma ciy tegal nag intérêt waa intérêt boobu lay laaj man dañ ne danga koo war a jël sarxe ko waaw ndax man mën naa ko fa bàyyi te masalan bu doonte ni deux cent mille intérêt la man ma jël sama xaaris bopp bi ma yor fii jël 200 mille yi saraxe ko te bàyyi compte ba noonu aha kañ mboo ko julit question bu mel noonu bari nañ koy laajte wàllu zakat masalan bàyyi naa 10 millions ca banque ba war caa génne 250 mille zakat ndax il faut damay dem banque ba def un retrait de 250 mille déedéet dañ naan la boo amee 250 mille ak foo ko mën a amee jëlal loolu nga génne ko zakat jeex na parce que xaalis lañ cay compter mooy valeur am mais compte wuñu jëmm ji ci boppam mu ngi noonu ne na rek tey jii euh, borom bitig bi mën nga ko ñëw ne ko dencal ma sama dix mille francs bi mi ngi noonu ci sa kanam mu mu wecci ko koo xam ne nii day day day dem parce que lay problème mooy du ne këyit bi ci boppam mais valeur bi la loolu daal moo tax ba intérêt bancaire yi nga war a sarxe zakat ba nga war a génne du ne rek ngaa war a dem ca xaalis ba nga dencoon que ce soit à la banque la wala nga denc ko sa kër ne il faut ca xaalis boobu nga war a jël déedéet beneen xaalis boo mën a jël loole dana baax wallahu subhanahu wa taala aalam um, kii day laaj mu ne waaw dafa gis uh, imaam buy ñaan àjjuma nit ñi di yëkkati seeni loxo waaw ndax loolu sunna la déedéet mbokk jullit yëkkati loxo loolu sunna la ci place yu bëri budul ci wàllu ay julli waaye bokk na ci li boroom xam-xam yi wax yëpp place yoo xam ne yonent bi gis nañ ne jaar na fa te mus caa yëkkatee loxoom kenn waru caa yëkkatee loxoom masalan ki demoon bay taaya day ñaan ndax war ngay taaya di yëkkati say loxo déedéet naka noonu it imaam bi xutba juma su demee bay ñaan sunna lu ñu mu yëkkate ay loxoom di ñaan mbooloo mi sunnaa luñ mu ñu yëkkati seen loxo di ñaan ku nekk da ngay toog fi nga toog rek di wax amiin di wax amiin loolu mooy la nga xam ne moo gën a dëppoo ak sunna wallahu subhanahu wa taala alam waaw soxna si moom muy laaj mu ne dafa dégg ne ah, xale bi bu dee dafay tëdd di yëy ay bëñam naan kak kak noonu loolu day wane na yaayam day gàtt fan mu ne nag sama doom da koy def mbir bi nag jaaxal ma ma naan may laaj nag ndax loolu waxi maam yi la wala dafa am cosaan ci diine amul benn cosaan ci diine waxi maam yi rek la bokk loolu lu bëri xale yi koy def la koy waral mooy ay saan demal dindal ko garabu saan nga xool rek mi ngi noonu boo ko dindalee garabu sann bàyyiwu ko it loolu amul benn problème su ko defee daal nañ xam ne sunu maam yi bi yàlla indee ab téereem dafay fekkoon seen téere ñoom mooy lii baax na lii gàpp nga ne lii nangam loo xam ne teguñu ko ci lu dul nattali kese amma yow jullit bi dem ba nekk jullit yooyu doo ko gëm gàtt fan gudd fan ci loxo yàlla subhanahu wa taala la nekk jullit ragalal yàlla di ñaan yàlla guddal sa fan ci ngërëmam wallahu subhanahu wa taala aalam waaw suñu delloo ci li nga xam ne nii mooy suñu juróom-ñeenteelu laaj kii moom day wax ne dañoo dëkk ak koo xam ne moom bi jullit mu yor ab xaj nag xaj bi nag daf ñuy sonal lool lool lool ndax ñun am nañ droit ut posen ci suuf rek imposé ne xaj bi ndax loolu duñ ci am bakkaar waa ala kulli xaal maadaama xaj lu dagana moom la te moom moom ab xajam islaam moom du nangu doomu aadama bi di fajal boppam ci wàllu atte looloo tax islaam dafay tëral ay attekat yu nekk ci réew mi comme ni ko ceddo di tëralee suñ pays yëpp xam nañ ne am nañu attekat police yaa ngi gendarmerie yaa ngi nii justice baa ngi heure boo juuyoo ak nit ku mën a doon jullit la ak chrétien da ngay dem ca ne yor atte ba ne leen kii kët xajam bii mi ngi ñuy lor dama bëgg ngeen wax ak moom ba mu fexe ba xaj bi bañ ñu lorati loolu daal mooy la nga xam ne moo la war am maa loolu bu amul ah lan nga man mooy comme sa dëkkandoo la nga dem laayu ko biir na ko ah ñun day xaj bi daf ñuy lor su ko nangoo téye xëyrun su ko nanguwul téye it nga muñ koo te yàlla tax te xam ne loolu it yow da lay jural tuyaaba wallahu subhanahu wa taala alam waaw suñu ñëwee suñu fukkeelu suñu naam fukkeelu laaj bi waaw kii moom dafay laaj mu ne waaw bu dee ne ab musaafir dafa ñëwoon ci jàkka ji bi mu ñëwee ci jàkka ji fekk ni euh, julli gi jeex na moom daal fekkewu ci benn rakka léegi ndax moom am na droit bu bu imaam sëlmalee mu jóg julli ñaari rakka waaw loolu day am na ci droit bokk na la gën ci musaafir waxuñu bokk la gën bokk na ñun lañu tànn ci waxi borom xam-xam yi mooy musaafir bu demee ci jàkka ja day ànd ak waa jàkka ja bu ñu julli quatre rakka moom day julli quatre rakka amma bu dee ne dafa dem fekkiwul ci julli gi dara kooku day mel ne ki ñëwoon ci ajjuma fekkiwu ci dara masalan yow ñëwoon ngi di julli si ajjuma bi nga ñëwee fekk imaam siggi na ci rakka ñaareel nga ànd ak imaam ñaari sujud yu mujj yi kese kooku dañ naan fekkiwu benn rakka maadaama fekkiwu benn rakka kon julli ajjuma gi moom raw na la lan moo ci des da ngay jóg kon julli ñeenti rakka muy sa tisbaar musaafir bi it bu fekkoon benn rakka ak imaam rek su imaam sulmalee day jóg julli ñetti rakka muy ñeenti rakka amma bu dee ne fekkewul benn rakka ak imaam su imaam sulmalee sëñ naa jóg moom yam ci ñaari rakka yi musaafiram kese mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala <coughs> bu ñu delloo ci suñu fekkeelu laaj bi ak benn mooy ndax jigéen am na droit sol perruque yi ñuy sol fekk moog jëkkëram rek nekk wala kulli xaal boko ko julit loolu day amna borom xam-xam yu koy daganal na ci mazhab malik tax mazhab malik ñom dañuy tekkale ki yokk karawam ak ki jël dara këpp ci karawam ñom dañ nan ki jël ay karaw këpp ko ci karawam rek dañ nan koku yokku lolé bu mel lu mel non bu di digënté mak jëkkëram rek la yam génnewu ko di tar bu mi génne ci mbéddi lolé pour ñom dagan waye nak da ngay gis ne bu ñu xoolee tegtal day yi gën a dëgër muy Muawiya ba mu ñëwee Madina radiallahu anhu bokk na lu jigéen ñi doon def xam ne yu ñu daan jël di ko teg seen kaw bopp ya Muawiya ne ay boroom xam-xamu Madina fu ngeen nekk ba ñu gis seen jigéen ñi di def li ñuy def looloo tax ba boroom xam-xam yu bari ñoom teqalee wu ñu entre perruque ak ki yokk karawam su ko defee dañ naan yépp a yem bal am na ci ñoom sax ñoo xam ne dañ naan perruque moo gën a grave kii yokk karawam boo ko xoolee day normal mais xoolu cheveux naturel yi ñuy def nii tey nga xam ne bu rasta yi ñu daan def di yokk karaw xoolu bi cheveux naturel ñëwee moo ko gën a mat gën koo ëmb moo tax ñoom dañ naan boobu sax moo gën a xaraam ala kulli xaal daal ci li ñuy wax mooy euh, yooyu ñuy wax rek daanaka amoo turam ci wolof perruque amuñu turam ci wolof cheveux naturel amuñu turam ci wolof loolu lépp ay nit ñoo ko gis diggaane ko muy aaday la ci ëpp aaday ay yeefeer la loolu tax ba dal yow soxna jullit maa ngi lay dénk ci del songu ba set wecc del fuddunu bu la neexee del euh, xool lépp loo xam ne ni taar naturel rek yu su maam yi xamoon loolee doy na sa diggante ak sa jëkkër bu ci dugal yeneen yoo xam ne nii complication rek lay juru mu ngi noonu ñii ne dagan na ñii ne xaram na yonent bi aleyhi salaam doon wax naan da ma yariibu ko illaa ma laa yariibu ko lépp loo xam ne ñu ngi ciy sikk sàkk dagan aram na rek ba ko boo bëggee sa diine ñoŋ wallahu subhanahu wa waaw bu ñu delloo suñu fukkeelu laaj bi ak ñaar kii moom dafay wax ni da ngay dajeeg léeg-léeg ay jullit ñu sol ay t-shirt ñu ciy publicité lu mel na Lonase wala di ci publicité ay yenn sàngara yi tax loolu baax na déedéet mbokk loolu baaxul loolu baaxul euh, t-shirt yooyu ñoo ñu koy def defaruñ defaruñ ko pour ko de dañ koo def pour de promotion la nga xam ne mooy seenum njaay te mooy tey mas naa dégg wallahu alam mas naa dégg ñu ni cigarette bu bon boobee de Marlboro ñu ni li ñuy investir ci publicité lu toll noonu la ñuy investir ca la nga xam ne mooy exploitation bi ñuy def pour génne cigarette bi lu toll noonu daañ ko daj ci publicité looloo tax cigarette yam dajaloo loon ci jamono ñoom ñëpp fay nañu gis nga ni muy tasaaroo ci kaw suuf kon képp koo sol ab t-shirtam ñu bind ca mm, ay publicité xamal ne yaa ngi bokk te ñuy tasaare mbon boobee te lool it nañuy moytu tamit rawatina ndaw yi mooy di sol ay t yu ñu bind te yow lañ ci bind xamoo ko masalan da gis ndaw ñu bari di sol ay t ñu bind ci GAP mi ngi noonu GAP boobu lu muy firi man man je ci nekk góor jigéen xoolal loolu man kontaan naa nekk góor jigéen loolu moo tax ba lépp lu ñu bind te xamoo ko ngallaawaay bu ko sol bépp t-shirt bu am ay jëmm ngallaawaay bu ko sol wallahu subhanahu wa alam waaw kii day ndax am na ci sunna ay ñaan yoo xam ne boo ko defee day tax yàlla ubbi sam xel waaw loolu day lañ ca xam moom mooy euh, am na benn xadis bu siiw bu ñuy wax ci ku bëgg a mokkal alxuraan di ko jàng ci nangami nangami guddi boo demoon tafsir ibnu kasir da nga ko fa fekk waaye loolu mbokk borom xam-xam yi wéeroo luñ ko li wér daal mooy li yàlla wax ab yonentam wa qul rabbi zidni ilma yàlla def na yonentam neel yàlla sama borom yàlla nag ma dolli xam-xam ak la yonent yàlla musa waxon rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul uqdata min lisani yafqahu qawli moy yàlla yàlla nga yaatal sama deun yombal sama mbir fecc sama lamin ba ku may waxal mu meuna comprendre li dal mom la jiddu wara ñaanal bopam ñaanal ko njabotam ñaanal sa njaboot yal na yàlla yaatal seen dënn mi ngi noonu yombal seen i mbir fecci seen seeni seen i làmmiñ yokk seen xam-xam amaa nag li ñuy jële ca maam yi ñu koy tudde ay kiis nga xam ne dañ naan da ngay dem ci sëñ taam mu bindal la kiis xale bi buñ ko ko takkalee rek wala ñu jàmb ko mu naan ko rek xel mi day ubbeeku loolu moom suñuy waxi maam la waaye du alquran du sunna wallahu subhanahu wa taala waaw bu ñu delloo ci suñu fukkeelu laaj bi ak ñeent <clears throat> kii day wax benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane yàlla day deseetul ngant benn jaamam boo xam ne da ko dundal ba mu dund lu ëpp la nga xamee ne nii moom mooy juróom benn fukki at léegi nag xadis boobu moom lay laaj waaw laaj bii day mooy mi ngi noonu rek <clears throat> mooy suñu borom yàlla ki mu wërsëgal ba nga dund 60 ans boo demee ci yàlla amoo lay booy wax naan yàlla waroon nga ma xaare ba ci kanam te mbokk jullit jullit dina war a xam ne dafa am ñetti étape yu muy traversé étape bu njëkk bi mooy fi nga majeure fi nga amee 15 ans jëm kaw xamal na say bakkaar yépp ñu ngi la koy bindal nga deuxième tournant bi deuxième étape bi mooy fi nga amee 40 ans fi nga amee 40 ans war nga taxaw nag seetlu. xam ne am po moom jeex na ci yow dégg nga nga jublu ci jaamu yàlla am nag bu ca yàlla dollee nga dem ba am 60 ans ah xamal na yegg nga terminus foofu moom lépp luy caaxaan ay lu lay dox sa diggante ak alaxira war ngaa fexe teqali ko moom ca mooy yàlla di seelutu la benn ngant boo xam ne nii danga ko mën a wax ci kanamam loolu mbokk ñu bàyyi ci xel lool.

ba loolu boo ko xoolee rek day mel ne yow boo xisee ba mu 60 ans bakkaar boo def yàlla du la ko toppee déedéet mooy boo xisee ba am 60 ans amatoo lay ci kanamu yàlla wallahu subhanahu wa taala alam waaw bu ñuy delloo ci suñu fukkeelu laaj bi ak juróom kii moom dafay laaj ngëneel bi ñuy wax ci suratul mulk ne yonent bi da ko daan tari daan ñaax nit ñi ñu koy tari te day musale ci mbëggalum bàmmeel ndax loolu ku ko munta mokkal di ko tari ci téere bi da am gëneel boobu ah na danga am gëneel boobu kay ca mu ca mooy euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suratul mulk day musale day musale ci bàmmeel am na beneen riwaaya mu ne dana ah, dàgga seenteel nit ki ba tàbbal ko aljanna naam moo tax guddi gu nekk moom daana ko jàng su ko defee soo ko mënee mokkal mu nekk sa dënn loolu day mooy lëgën su mënul it xamal ni jël ko di ko liir mi ngi noonu am na laaj ba xaw nur ak moom ci laaj yi ca mooy ndax kii liir alxuraan te comprendre ca dara ndax da cee am tuyaaba aha kay da cee am tuyaaba dañu xam ne alxuraan jubluwaay bi gën a màgg mooy nga xam li alxuraan di wax xam li alxuraan di wax te mbokk loolu yàlla yombal na ko ci lu suñu maam yi amul woon de na ngeen bàyyi xel masalan yéen ñi bokk ci groupe bi am na ay mbokk yoo xam ni yal na yàlla fay leen ci seen taxawaay euh, defloon nañu kaamil bi yépp ba mu jeex boo laajtee lee bi ñu won la ko fatiha baqara ba moo bu ñu ne lii lay firi loolu mooy benn bokkul nag tafsir bi nga xam ne moom non seulement dalay wax li la baat bi firi waaye dalay wax nag la baat yi ëmb lool tey atte loolee tafsir complet mi ngi ci alquran na doon li jóge ci ñun fa lay alhamd wala li jóge ci yeneen borom xam-xam yi wala fi nekk ci réew mi bari nañ lool coono bi nit ñi dat ci seen portable wallahi coono bi nit ñi dat tey ci portable su doon te ne dañ koo jubal ci téereb yàlla bi la ëpp ci ñoom benn baat dootu leen réer ci alquran la ëpp ci ñoom benn tafsir dootu leen réer ci alquran loolee mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaye nag comme ni ma ko waxee rek ñàkk xam alquran it teewul liir gam koy liir nga am ci tuyaaba alquran rek ko am nag xatta xadiisu yonente bi alei salaam amu ko soo jëloon saxiixul buxaari tey wala muslim di liir ba téere ba jeex amoo ci benn tuyaaba bu dee xamoo ca dara amma alquran moom yonent bi aleyhi salaam nee na xarf boo jàng am nga tuyaaba tuyaaba ca yàlla dañ koy multiplier par mu ne waxuma alif laam miim déedéet dama ne alif xarf laam xarf miim xarf looloo tax faatixa rek boo ko jàngoon cent treize ci ay xarf la cent treize boo jàngoon faatixa kese am nga mille cent trente tuyaaba faatixa kese te yowmal qiyam da nga gis ko xamne ne benn tuyaaba moo tee jëfam yu bax ëpp defam yu bax loolu ñu bàyyi ci xel bu bax wallahu subhanahu wa taala alam waaw bu ñu delloo suñu fukkeelu laaj bi ak juróom benn xale bi mo mu ne dafa am ko xamne daf may bëgg waye étudiant la liggéeyagul léegi ndax moom mën na ñi nekk di waxtaan ci ay téléphone gi dema noonu waaw liñ lay jëkk wax mooy daf may bëgg étudiant la bu may bëgg ngal la waaye xale yu jigéen ñi bàyyi leen loolu xale yu góor yi bàyyi leen loolu yeneen ci alayhi salaam daf ñu doon wax ya ma'shar ash-shabab man istataa minkum al-ba'ata falyatazawwaj ay yéen ndaw ñi ku jóg mën a takki sëy na dem takki waaye mu ne ku mënagul fa alayhi bi sawm mënagoo muñal su ko defee yow étudiant nga xamoo sa njàng fu muy mujj nga dem dajanteeg fàttaam na ko bëgg naa la bëgg naa la ñu nar a toog nag di xaar nga war a xaar ba say étude jeex ba étude jeexee ñu xool fan ngay liggéeyee boo liggéey di xaar looy dajale pendant trois ans quatre ans cinq ans mbokk loolu fekk da ngeen bëggante ndax loolu musiba bu toll ne ndakaaru mënu ca am ah <laughs> su ko defee yow xale bu góor bi tant que mënagoo takk jabar muñal di ñaan yàlla yàlla may la situation boo mën a takk jabar bul dem mukk di déclarer ay mbëggeel ci doomi jaambur yooyu xale bu jigéen képp ku ñëw di la déclarer ne la bëgg jabar te xam na ne situation bi yeggul ci mën a takk jabar ne ko waaw muñal ma rek bu ko jox mukk la nga xam mooy sa accord lii daal la ñuy jëkk a wax mi ngi noonu am naa nag ay nit ñu bëggantee di waxante ci téléphone guddi ak bëccëg ca sëy doxul seen diggante loolu lu ñu war a moytu la wallahu subhanahu wa taala aalam waaw xam naa bu dee ne ci laaj bi nga xam ne ni moom moo ci topp di suñu fukkeelu laaj bi ak juróom-ñaar moo di ne ne waaw ndax jigéen bi nga xam ne moom daa feebar demoon médecin góor rek nekk fa mu ne ko da ngay summeeku summeeku boobu ndax fuñ koy teg wala li xaal loolu day ci suñu feebar yi ñuy dal la feebar yi ñuy dal mooy soo demee hôpital da ngay gis benn néega ngay benn médecin gu góor moo fa nekk futti euh, jabari jaambur tiim ko di ko consulter nga xool à gis médecin bu jigéen futti góor di ko loolu mbokk feebar la bu ñu dal moo tax ba am na borom xam-xam yu dëkkee sunu gox yi am yëg-yëg bokk na ci ñooñu docteur Mouhamed Lo de eh, imam Gana Dioko ak la nga xam ne nii mooy imam Aboubacar Sall te ñama ca mën a tudd ak ñun ñi bokk nañu xalaat bu ñu xalaat bu ubbi hôpital bu ñuy tuddee Chifa képp ku dëkk parcelle xam ne Chifa lan moo jur Chifa du dara lu dul feebar bii rek. moo di ne gis nañ njaboot gi jigéen ñi dañuy dem góor di leen consulter góor ñi dem jigéen di leen consulter amma hôpital Chifa boobu boo demee day lu dul cas extrême yoo xam ne nii jàmp bu extrême loolu rek mooy waral waaye dañoo séddale góor ñi ay médecins yu jigéen ay góor médecins yu góor ñoo leen di xool jigéen médecins yu jigéen ñoo leen di xool loolu daal mooy la nga xamee ne expérience la boo xam ne war nañ koo fexe